sayiduna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonentu bu tedd bi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaxa mbàkke yàlla ko fi yàlla bàyyi noonu lañ koy ñaanalee itam xalifa ba ca Tiwaawan sëriñ Babacar Si Mansour di ko ñaanal mbooleem kilifa diine ci réew mi yépp ak waa daara ak ñuy jàngale alxuraanul karim yàlla na leen yàlla taxaw te defal leen jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira émission bi nga xam ne nag moom lañ leen baaxoon a amal ci alxamis bu jiitu ci weer wi ñu war cee ànd ak suñu mbokkum daara di mm-hmm. borom xam-xam di gëstukat mm-hmm. sëriñ maxtaar kebem Cheikh Salih Mbacke moom lañ dalalaat tey fii ci eh, yaatal mbindum alxuraanul karim mm-hmm. laataa ñu dugg ci waxtaan bi sëriñ maxtaar ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu waa C3S El Hadj nekk ca bopp ba sëriñ Fallou Serigne daam Touré di nuyu personnel bi fu nekk ci biir eh, capital beeg bitti bi yëpp. Mm-hmm. di siyaareek nuyoo itam sëñ Mbacke Sorong mi génn léegi. Mm-hmm. di sun xarit. Mm-hmm. ci émission bu am solo boobu muy def. di la yow di la nuyu di la siyaare waaye di nuyu Serigne Moustapha suñ technicien bi nga xam ne moom lañ àndal. dina bu nuyoo nag. bopp yoon wi muy alxalifatul am lil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa mm-hmm. di nuyu itam xalifa généraux yëpp waaye di nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi ak ñi nga xam ne émission bi sof saf na leen te ñooy waa daara mm-hmm. ñu koy topp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare mm-hmm. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu sëriñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk mu ngi jëm ci ahibbaa u ahibbaa u ban boole ci ñëw ahibbaa uhu njoogu laxillaa u ashiddaau fatxi tolloo sidda yat dañoo tolloo ci siigo boo ne axibaau ne axillaau ne ashiddaau dañoo tolloo te ku ci nekk nag sa digg dafa sàdd dëgg la ci lu wér barakallahu fika kon ngi noonu mooy baat yi tolloo te boo ci xool digg ba daa am shidda jërëjëf sëriñ Maxtaar ci laaj bu am solo boobu. su ñaareelu laaj mi ngi jëm ci taat sidda laam taat sidda laam moom lu mu. taat sidda laam jëm jëm sàpp taat ga dafa sidda ga dafa jam jam waxoon xam ne jam jam mooy lu amul sàdda taat ga dafa sidda laam ga dafa jam jam muy kenn du sàdda laam ga sàpp nag mooy fukk ci pël tat talion tat baat ga dafa sàdd mhm. waaye laam ga dafa jëm-jëm mhm. doo wax tab doo wax tab tallihu mu ne tab talihu mhm. yaar njoogoog lu masa law it talaata njenge it talaa al xayb mareem mu attalatin xajji la aliya attalihu xasas fa attalihu xafraan muttalixoona ak fa attalihu yépp nga baa mu ottilat ca takk wiir sappo barakallahu fiik ottilat ca takk wiir jëm ci taat shadda laam mhm. sëriñ maxtaar mhm. loolooy ñaareelu laaj suñu mhm. ñetteelu laaj mi ngi jëm ci sak jorngel sak jorngel mooy ñeent mimma am sakk na njoogu la fi sakratihim xijiri la am saktum lisraa i sakratul mawti majid yooyu yëpp sakk la te siin nga daa woow kenn du ko tooyal mu ne sakk jor ngel jërëjëf kooku mi ngi may dugg ci beneen boole boo mm-hmm. fi waxoon muy giru siin juróom-ñaar xam naa danañ ci ñëw incha allah incha allah muy sakk mm-hmm. kon foofu yaakaar naa ñii seetaan boole yi mm-hmm. fii ne moom amatuñu problème luy siin su tooy ak siin su wow ndax boole yi ci ñëw ni mu baree jërëjëf sëriñ Maxtaar ñette ñeenteelu laaj bi mu ngi ci max wettéer max wetteer njeego muy juróom benn fii max masotin njoogu wala max masotin baraan max duulan lisra max boodin musni mooy waaqia maxrajan max maxtuumin mikkiyaal mikkiyaal mooy waylun lil mutaffifiina max googu bu ci nekk wetteer la muy xaadam dellu la hmm. Hmm. jërëjëf sëriñ Maxtaar mm-hmm. ci max wetteer juróom-benneelu laaj bi sëriñ Maxtaar mi ngi jëm ci xu tongu tongu mooy masque ak lonk mooy masque ak lonk dégg mooy mooy baat bu lonk bokk mooy mooy ak xaalonk bokk mm-hmm. astafurlah tongu mooy ak xaalonk mm-hmm. ngañ mooy ak xëyin xëkka biir mooy gumaalo defe naa yépp lee mu jeex ayin mooy dëgal mboolem giiru xaa gokk ñu ne nag xutongu juróom yaar xurimat yat jigéen ak njóogoog lan xam xunafaa yaar xajje kaw ni xunay nin baraan xuurun bayaan yépp ay xulay waaye danga nga ci indi benn baat léegi xajju kaw ni kaw ni moom mooy lan kaw ni mooy way sootul kaw ni kaw takwir kaw ni kawni. kawni kawni lam yakuni alladina kafaru min ahli alkitaab. jërëjëf jërëjëf jërëjëf baatu kawni boobu. moom laa doon laaj. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral bu am solo boobu jëm ci tongu suñu juróom ñaareelu laaj sëñ Maxtaar mu ngi jëm ci lat shidda laam gi mhm. taati tombe da caa tege ca kanam mm. te laam nga nag di sidda ñu ne lat sidda juróom mhm. uxillat yat jigéen njoogu xaj mhm. jigéen mooy nisaa yi mooy mooy maida xaj xam nañ ko xata ida aqallat laaraaf wa taxallat leen shiqaaqi lat sidda laam yépp a sàdd foofu jërëjëf sëriñ Maxtaar ci jëm ci lat sidda ak boole yi ci ñëw te am solo lool tabaarakallah euh, beneen laaj bi sëriñ Maxtaar mi ngi jëm ci maa fii bañ wama maa fii bañ wama kon maa fii ànd ak wama ak yu koy bañ ak koor sëñ Omar maa fi samawaati wa maa fi l ardi mhm. ak maa fi samawaati wal ardi maa fi samaawaat yi nag mhm. wa maa fi ardi daa bari mhm. ñu ne kon nañ jukki mhm. maa fi waat yi ànd ak walardi su ko defee boo ko xasee ba xam xam nga yi nga xam ne kon boo ci gisati comme yaay lësina bañ amono bi ñu jëloon jeex na boo xasee ba xam bañ amono rek da nga xalaat xam amono amono dëgg la maa fi bañ wa maa ya un fukk ak benn bal nga laan fa inna lillaahi nga jigéen mooy nisaa xulli ma nee nga lan am ala inna lillaahi yaar la yunus ak noor yi waasiban mhm. nahli yaxlamu yaar la xanka ak taxaabuni mhm. lillaahi nga loqmaan mhm. waxoo yaar la xadiid ak xashri fukk ak benn yi ñooy maa fi samawaati yi bañ wama lu li ki des nag bu doon téeméeri yëpp nangu na wama jërëjëf kon fukk benn rek moo ciy bañ wama bañ wama yu dul yooyu day ànd ak wama ok maxtar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci maa fi bañ wama yaa ayuhan naasu nag moom yaa ayuhan naasu xad yett la ñu ngi koy tënkee ci rabuxa yaa ayuha rasul yaa ayuha naasu xad jaa akumur rasul xad mhm. la nga cay teg mhm. yett la xad mhm. jaa akumur rasul burhanun xad jaa akumul ñu ne yaa ayuha naasu xad jaa akum la ñu ngi koy tënkee ra bu xa ar burhanun yépp nga jigéen alxaqu nga yunus mm. macha allah mooy yaa ayuha naasu googu suñ Maxtaar beneen laaj mi ngi jëm ci antu nazila antu nazila yaar ñu ngi koy muy jigéen ak listraay yi antu nazala yaar ximraan ak baraan antu nazila ak antu ñu ne antu nazila yaar la jigéen ak lisra muy nisaa ak lisra yi antu nazala nag yaar la imraan ak baraan mm-hmm. jërëjëf sëriñ maxtar ci laaj boobu nga xam ne tontu boobu nga xam ne dafa jëm ci antu la nga leeral ci lu am solo muy antu nazara mm-hmm. Mm-hmm. ndax ñaari baat yuñ bokk nuñ leen di bindee waaye maska leen soppi mm-hmm. zulmun taat zulma taat njeego muy juróom benn shahidan fa bi zulmin jigéen muy nisa aymaanahum bi zulmin muhlikal quree bi zulmin ñaari yépp nga lan am li yuhlikal quree bi zulmin mu nga hóot bi ilhaadin bi zulmin nga xajji inna shirka la zulman nga luqmaan maasha allah inna shirka la zulmun azim ma nga ca luqmaan mbokk yi ñu leen di fàttali ne yéen a ngi ci en émission yaatal mbindum alquran jëm ci boole yi alquran yi nga xam ne moom lañ leen di amal di fàttali ne compagnie Alaaji Sëriñ Seck moo leen koy may ngeen di ko am alxamis bi jiitu ci weer wi tey nag ñu ngi ci suñu fukkeelu numéro ak ñeent di leen yëgal rek ne noonu lañ nar a demee ak yéen ba ca minal jinnati wan naas yi kon boole wu leen rëcc ci alxuraan rek bu ngeen duggee ci chaîne bi di ngeen ko fa mën a am fàttewuñ suñu mbokkum daara euh, sëriñ Abdou Khoudous Silla ca Daarul Mooti di ko sant di ko gërëm comme ni ñu ko waxee woon bi ñuy tàmbalee sëriñ Maxtaar ñu ngi suñu mujjeelu laaj bi ci mujj rek mooy xakka sawru xakka sawru moom lu mu doon ci boole xakka sawru mhm. naayo abtaghi xakaman lan am xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yépp nga jigéen xat xakamaa nga xafraan jërëjëf xat xakamaa nga xafraan mooy suratu xaafir jërëjëf sëriñ maxtaar ci leeral yu am solo yooyu yàlla yàlla yokk xam-xam bi yàlla na yàlla barkeel ko liggéey bi itam ñu ko tàmbalee ci alhamdu bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko jeexale noonu ci alhamdulilahi rabil alamin nit ñaa ngi lay suivre di la gërëm rawatina ci màggal gii ñu jóge waxtaan wi am solo yu ànd ceeg sëriñ Mbàkke Sourang ak thèmes yu raar yi ngeen doon traité lépp jëm ci njàngaleem lislaam njàngaleem Serigne Touba mm-hmm. waaye njàngaleem alxuraan ndax mm-hmm. waxtaane sëñ bi mooy waxtaane alxuraan mm-hmm. waxtaane alxuraan mooy waxtaane sëñ bi ndax léppam alxuraan la woon kon sëñ Maxtaar laataa ñu yëkkati jotaay bi sa kàddu gu mujj lan lay doon xanaa de sant ñu ko seqal te la wolof njaay waxoon ne ñi baax ba yeboo ñu bëggante ndax ñi baaxul duñ leen bëgg ba mukk kon jàngalekati alquran yi ak jàngalukati alquran yi ak ñiy jàng alquran ak ñi bëgg ñiy jàng ak jàngale jàngale alquran ñooñu ñoo bokk société. société boobu di bu yaatu chauffeur baa nga ca baykat baa nga ca commerçant baa nga ca ñëpp nga ca. Mhm. Sénégal lim njëkk am mooy chauffeur bi dawal oto bi te boo ko tari loolu raxmaan mu mën koo tari loolu yombul ci benn pays. Mhm. baykat ba nekk ca àll ba di bay. te boo ko joxee alloo mu mu toppal la ko loolu yombul ci benn pays yi commerçant bu nekk ca palaasam yore palaasam di importer ka exporter te ba fu foo ko dëkk ci alxuraan mu mën la caa tontu loolu mooy kon ña nekk ca waar wa di jàngale nañ xam ne am na ñu nekk ci seen ginnaaw di leen suivre dëgg la mooy ñi ñi ko bokkal ki wommat doomam yóbbu ca daara ja mu bëgg mu jàng kooku bokk na ci société boobu kañ fa yóbbu muy jàng ca société ba la te ka koy jàngal moo sos société ba société boobu nag di société maam ya lañ ca defoon muy lu am solo bokk na ci liñ doon waxtaane léegi ñu teg ko ci tenkoñ goo xam ne lu xel développé wu développé wu mënta ñëw naan lii waruñu ko woon a def benn bu ci àgg bu ne da nga naan lii mënul woon a ñàkk kon nag ñooñu amal nañ leen njukkal njukkal te di leen ñaanal naan rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil imaani wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim bari na neex tey démb la woon asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi waxtaan bi ñu leen amaloon mi ngi noonu muy émission bu am solo jëm ci boole alquranul karim yi ñu àndoon ceeg Serigne Makhtar Kébem Cheikh Salifou Mbacké di gërëm compagnie Alaaji Serigne Seck waaye di gërëm itam ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi muy Serigne Fallou Seck ak Serigne Dame Touré di gërëm itam mbooleem ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ ci biir compagnie Serigne Seck ak fu ñu mën a ci biir réew mi rek góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di gërëm suñu caméraman Moustapha Sarr di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rahmaani rahim. والقلم وما يسرون